yow xoolal nee naa la lépp laay matale instant yi ni mayuma leen zéro virgule cinq seen benn naxa-naxa lañ ma jàppee wante lépp dinaa ko matal xoolal bàyyil di ma woo woo yu bëri yi balaa ñëw si bàyyil di ma woo woo yu bëri yi ah yow tamit nag neexa la waxal fu ma woowati ñoo ngi nii ma ñi de ko tax waaye fu ngeen demoon. Ah, deer hmm. de lañ def de. waaw man de kii xaw ma ko mën a qualifier man tiyaa sax talu ma ko fii. <laughs> kii daa boo wala dafa bel. waaw. yenn rafet yi góor moomu ko. mu dégg la bel ci góor. du cëro. damay laajte doo nga. waa doo ko woo. Oh, aw ma message ko. message ko looy xaar ko. baax eh, boobu message wax. loo ko dul wax jox ko rendez-vous. ak fi réew mi toll. dana rëcc xool. bari góoru njëkkante la. góoru njëkkante la waaye eh, bañ nga am fekk xam tànkatu daal la moom si carax lay. dina ma il va t'appeler peut ko bi doo ko defar. yaa li la la. waaw lii sax doo fomp. ma takki woon. ah. kenn du wax. ça foo toll ah yaa ngi ci wàllu kër yi léegi nga yegg si ok maa ngi lay xaar avec impatience nag ok à tout ma lay yokk di la laaj nekk mu ne la. ñun ci wàllu kër yi kii ëppalul. Ah. rek ah, teg te loolu nañ ko fay di. <laughs> ay wàññi de. soofu de waaye ñu ni soofu ñu di. damaa <laughs> amee waaye jus bi tiyaa defoon anam jinjeer bi. bi. defaroon na ko ko def. ndi waaye kontaan noonu te ji ñëwagul yow tamit nag dafa mel ni mooy sonné noonu de xaaral ma dama xool. dawal dawal ko wan ginnaaw de wan ko kanam di dox. lii dinañ wax kii di daa jantala jantala jantal tàng na de dem gaa ngi dem gaa ngi loolu ci baax yaa si jàmm tranquille toogal. toujours prenez place. li ngay xëy moom. naka mu nekk ah. maa ngi nii rek. maa sonn. maa ngi noonu nii quoi. ci noonu. ça va alhamdulilah maa ngi nii rek. nga tàng. non même pas tàng ma affaire yi léegi ci tàng yi. saa laay lañ nekk nag alhamdulilah. yow yaa ngi këpp jur gi. naka yoon bi mbaa de. merci. yaa nekk nii. la nam benn kaar bu gàtt bii nii ñu gisante woon rek namu la ñu. Badou. maa ngi ñëw dégg nga. da ngay yàq waxtaan bi. ci nga bokk de. ci loolu. yaa yaa ngi si namu naa de. Ah, ci ay minutes nag. <laughs> yaa nekk nii. maa Eh, man daal bëgg naa li ci góor góor bu pare li nga def baax na day bañ nga mer rek hmm. eh. kontaan na lës rek daa am nañ koy teeroo doxal waay <laughs> autant nga def nii quoi nii dinaa def def ba mu baax dama ko oyofal rek eh. dafa oyof ni ah. waaw yow bu diisoon ndox kon man nu may def <laughs> damay bañ nga tom parce que xaw ma par exemple ma jël ma tour ji ak li ngay sourire nii gis nga de ba xam nga ni kontaan na kontaan naa te dara xewul. Hmm. waaw saa yi ma xool bi naa ma hmm. def sa gën a boo bëggee rek man damay bëgg. Hmm. ci lay bëgg rek lay dox. waaw kay àdduna lépp teraanga la. waaw. waaw Thia. Thia kii ni nga ko doon xoolee sànq rek nga ko xam. yow man kii rek laa xam kii yorul cent franc le trompeau lañ koy wax. yorut xëyut gontu. dégguma la de yorut cent franc. foo xamee kii. mooy yow xanaa déggoo lu ma la. yorut dara dërëm yorut ko bu dee si moom ngeen yaakaar doo leen laal tuus. foo xamee kii yow. pour kii rek ak koo xam pire. naa ci xam dara. baax na yow lu ne yaa koy xam. maa ngi sant bu baax. fii comme chez toi. dara metti. ok. yaay sama góor waaye ñoo ngi toog. bëgg naa lii de gis nga de. dindi nga sa kàddu dafa tàng dafa tàng dafa tàng nu ñàkkee dafa xaw a tàng moom franchement. brise bi dañuy tëb géej gi la. waaw mais nii moom ça va quoi. waaye saa yi moom tàngoor bi moom. moom su ma xamee sama wet rek dootu ma yëgati tàngoor bi. loolu lañ bëgg yëngal nii. n'est-ce pas bébé. waaw monsieur. aleykum salaam. waaw salaam war nga am fii de. waaw waaw. xëy na fi ma naan dafa tàng. waaw yow ku la ubbi. loolu mooy fi ma naan dafa tàng waay. yow eh yow woose nga de yow foo jógee ak koo faale ba ñëw ni naan ay xelil ma. yow eh, pour yow mën ngaa dox mbedd Ndakaaru Njaay jël jël changement bi duma la gis fenn yow loolu ko teg sa bopp nga ñëw sama bitik si njëkk ak teraanga ne ma dangaa soxla dangaa war a génn dama defal la danga pare doo ma jox sama alal kon waruma doon fekk fii sax. daal yi mu ko soxla. jiin bi wax naam. seet bi tamit dañoo dem mais kawas bi. nga koo gaade ak montoor bi. mu nga koo jël. eh si yow xamoo sa bopp de yow baadoo woo fan nga jógee nga réer réer ñëw naan yow da ngaa de. kii yow moom mat la woo leen dèjà mënoo leen xam ko mat la. mënoo xam ko ngay jaay doo sol bu fi ñëwati dégg say ndaw yi nga teg ko ci sama fauteuil bi di am looy wax. war na kat tubayam bu njëkk te xat. jeexal na hmm. sama xol bi dem ci àdduna li yàq lees nii. da ngaa tàng xanaa. même pas sax. kii moo la découragé loo nii. non même pas c'est que dafa am lu mu war a dem defi pa dama am benn rendez-vous mu war a dem lijjanti xam naa après dina dinaa fi ñëwaat dinañ déggante dinaa la woo. da yàq mbënnal bi nii. non dinaa la woo dinañ déggoo incha allah. neexoon na de. dëgg la dinañ déggoo. Hmm. merci ah. ok. merci. la prochaine. merci beaucoup léegi. donc kii dama bëgg nga wan ma shabam fu mu fee toog di ko sànni ay kaba ba mu ñëw. waaw kii war naa yàq ah, waaw waaye nag sa kii tamit. ba nekk xoolaat maa ngi jéggalu. yàq maa sa kii la mu jantal amoon. dara de loolu ma ci intéressé sax jantal bi. ngaa bëgg góor. Ah, bëgg naa présentable tamit. sa waa de demul samay moral. waaw nu yi tamit ndax li fi kooku wax yaay jàpp ko. dañuy jàpp ko dafa yow kii ba kii di wax daa tontu. eh dafa am ñoo xamante ni si motuñu mbuus te dañuy yàqu mbuus. Hmm. Hmm. loolu na tax nga découragé. moom xelu taw nga yow. mu fi yàqu de mu fi kenn yàqu fi. salaamaaleykum. saa sama sœur. ah cëm yow moom. jël ko la mu tegat. bii moom mën nga ko def mel ni ginnaaw xaw ma da ngaa rey xaw ma da ngaa dugg. waaw jàmm suuti si biir. yow Fatima li nga sol lan la. ah doonoo miir di ko sol de disket laa doon di ko sol. doon moo sol moo tax duñ jubboo. waaw ba tey baax na. neexoo ma nag da vulgaire pour lan. bàyyi sama yaay bàyyi la ci la boobu de maa ngi def say xew mel ni éventre. foogal foofu yow di wax da ngaa dese. man sa wax ji sax dëddut lool. déglu ma laaju ma sama yaay boo demee ne ko suba naa ko jëndale xar yaa ngi dégg. dégg nga loola. seen ñaaw bi suba na nga ko jëlee. te tey dama see bokk. sama ñaw ko ne la. lan ñawalee oh. Fatima du ma la ñawal. njëkk suñu ñëw yëpp fa ñu waroon. waxuma loolu ñun loolu indiwuñu fii déglul wuy ah, ma. waaw kay xibaar la ma la doon wax. bu yeboo na nga takk ko téere te def ko sa bopp le premier bii di ñëw dañ lay takk jàng jógal ñu dem nag waaw bu yeboo waaye na nga ko jàpp téere ay sa caa ñoo leen may boo ko tëdduwaale balaa sa maam di tëj ay buntalu waaye daal taxu xol su ma ne yow rek laa bëgg gëm su ma ne yow rek yaa fi ne yaay gëm ma bul ma xoolee yeneen góor yi fi jot jaar man du ma ñoom te duñ man soo xoolee li ma andi ci yaa